ami internet yu bi Promedia TV Bour Gueweul TV maa ngi la ñu nuyu di am contentement di jàkkaarloo yéen ak chaque fois na comme ni ma koy waxee li ngeen neex ak li ngeen bëgg rek moo ñu fi tax toog tey nag dañu ñëw seesi naanaan dañu ñëw fii zone de captage seesi suñu tonton suñu ay nopp ba muy woy sax boobu ay xale lañu waaye nag mu marqué empreinte am si génération bu mu nekkoon nee naa ko muy boroom jigéenoo jigéen boroom goree di ah borom gore autant pour moi borom batalo Joola borom kër bàyyi bëri na ay œuvre yu bëri yu mu def dama ko jox micro bi ah ñi nga xamante ne xam nañ ko dinañ xam ki may wax mu nuy mbokk internet yi tonton Lamine Segnane ziar naa la. waaw maa ngi lay delloo ziar di kontaan ci invitation bi aussi euh, di leen jaajëfal bi Pro TV. waaw Bour Gueweul maa ngi koy maa ngi ñaan daal site bi yàlla yàlla yokk ko en fait voilà ça fait plaisir ci dérangement bi ñëw nii. ñëw zone de captage pour ngeen ñu def émission voilà dina jolli ba jaaxal gaañu daal <laughs> merci. Ah, day jolli na avant mooy commencé rek euh, dëkk la sama micro commencé nañ def émission bi mais mu nga ñu briefé na tuuti rek si carrière bi jaar-jaar bi da xëyoo rek waay. naaw noo xëy ma rek waay parce que xam nga àddina moom lépp loo lépp lu doomu aadama yu dugg rek yàlla koy da koy tracé ci dundam donc voilà mécanique laa doon def mooy sama profession d' abord ba yàlla def tey ma nekk musicien di way ok ci sama métier lañ ma fekk defal ma album c' était juste pour expliquer la parce que xam naa tradition bi ma jaar pour di ko expliquer dafay day jël temps voilà bu Saly laa defee mécanique ki ma jëkk a produire Amadou Ndiaye la tudd maa koy gën a ñaanal aussi yàlla di ko yàlla gën ko dimbali voilà liggéeyam jëm kanam voilà fa la Saly lañ xamante mu defal ma album muy sama premier album muy Gorée voilà bari naa fu ma jaar nag wax dëgg yàlla avant may ci mécanique laa mujj mujj ci way mais dem naa géej dawal naa watiir def naa menuisier ubbi naa salon di wat donc c' était juste rek pour expliquer ne la góor da war a am benn voilà sa CV dafa doon riche voilà. Ah, ba nga doon def métier yooyu ay way wala dafa am koo xamante ne mu nekkoon sa idole bëgg a bëgg a wala. waaw xam nga artiste boo gis da ngay am idole parce que nit da ngay jël ne kii mooy sama idole man coon mooy sama idole tu bari naa ma ko wax sama émission yu parce que ay textes am dafa riche actualité la donc voilà. Thione moom c'est lui m'a inspiré quoi Thione moo tax daal nga a waay. waaw ci benn waayam bu ñu wax euh, Maacu ndey ndeyu kenn morceau parce que mu bëgg sama yaay morceau boobu moom ma inspiré dama daan sax liggéey di ko wayantu muy fen ndey ndeyu kenn la bàyyi bàyyi ñëpp sama yaay ji sama yaay gisuma ku ma lay mën ci yow mi gën ci man yow mi gaaw ci man yaay bëy sama gàllaaj morceau boobu moo ma inspiré ba tax ma voilà ma commencé nag di wayantu inspiration bi ñëw may bind voilà ba yàlla def ma nekk waykat lu waral absence sur la scène musicale boobu ba léegi tonton léegi waaye nga voix bee ngi fi talent bee ngi fi mais tonton Lamine dafa jékki-jékki rek réer complètement lu waral absence waaw mais destin la parce que booy liggéey maanaam nekk ci mbir ba am ci empêchement da ngay reculer quoi nga xoolaat benn voie ngay jël donc voilà c'était juste loolu la empêchement yi lan la woon gàllankoor la ci àddina te mënul ñàkk ci jàmm en parce que yàlla mooy xool jàmm teg ko nattu nattu mi da nga koy rek mu jox la voilà mu jox la benn force may la ouverture ci d'une manière générale ci lépp looy dugg rek xam noo ciy duggee xam tam aussi ñi lay xamal mën a partager avec les gens say proches donc voilà c'était juste loolu rek. ci sa génération mun nañu lim. Euh, Boy Maroon Omar Ndiaye tonton Lamine Segnane ci génération boobu yooyu ñii na fi nekkoon marqué seen empreinte mais dafa jékki-jékki rek affaire bi dafa meloon ni courant bu coupé tàkk fay noonu la def affaire bi dafa gaaw lu waral loolu. waaw mais xam nga musique dafay saturé. Euh, nga toll ci benn moment parce que doomu aadama doo canaliser sa bopp rek ci benn style ne man mbalax rek laay def parce que diiran bi nga toog am empêchement war nga liggéey parce que musique ay facette la. comprendre nga sànq yaa ngi wax Omar Omar Ndiaye mais Omar Ndiaye moom sax Omar Ndiaye xustumaan yaakaar naa ngay wax waa kooku moo ñu mag booy maroon aussi boo xoolee way na lu yàgg may doo ko way man ñi ma sama génération ñi ma ñu ko defal Abdou Guité Seck la moo nañ moom frère maa ngi koy nuyu au passage ak euh, comment il s'appelle encore kooku suñu suñu rakk la voilà euh, ñoom Mam Balla ñoom Tano Titambay. mais période bi ngay way ñoom ñu aussi ñoo ngi fa woon di ñu ngi fi mais xam nga musique jamono jooju sax laa laa gis ne musique jamono jooju la gënoon neex ci ci man bokk. voilà ci man boobu parce que moment boobu concurrence bi am na da ngay gis ku génne benn album mu def bëm voilà mu neex quoi euh, damay waxaat ñëw encore ci sa question ñëwaat ci mooy ne destin la voilà ci benn paste vie la boo xam ne da koy dund rek après mu jeex nga jéemee demat devant toi jéem a atteindre sa objectif parce que musique loolu la tey war nga mën a tout le temps war nga mën a am loo way mën nga jukki ci sa bopp di way jukki ci keneen di way voilà parce que voilà mais bul bul sa bopp rek ne man style bi laay def bari nay facette il faut être patient nga toog voilà bind tonton ñu jëm ci album bi gore gore macha allah dafa nekk album boo xam ne ba léegi actualité la ban année nga ko way ndax de nee naa ba nga koy way boo man xale laa mais ba léegi texte bi dafa riche ba léegi nit mun na ko dégg mu nekk actualité jusqu'à présent ñu nga décortiquer tuuti rek ci gore mais yow ku la gis xam na yaa mag yàlla da naan gore. ba ma lay seetaan. billaay ba ma lay seetaan nii laa day. c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, euh, ak léegi yàggul. tey boo boo xoolee ak léegi ba tey mais xam nga ko booy def sixième ak ah, 2003 bu fekkee nga def sixième doo xale. Mhm. parce que 2003 ak léegi ñaata at la. mais doon naa toog di la seetaan. 22 ans si je ne me trompe pas yaakaar naa 20 ans la. ok voilà 2003 léegi laa 2000 sama premier album fa laa ko 2003 laa ko def 2005 bi def sama deuxième production mais Gorée dafay nekk euh, actualité la en fait parce que boo xoolee société bi tey boo xoolee loolu ñuy dund doomu aadama tey ñu bari na ñoo xam ne sama classe yi alal moo leen gënal doomu aadama parce que bari na ñoo xam ne tey xamuñu sax la ma ci ban ci ban concept laa waaye parce que man concept bi ma waaye juste mooy euh, il faut respecter les gens nga bëgg doomu aadama en la personne da ngay bëgg nit ni yow parce que nit dafa riche mais tey bari na ñoo xam ne tey alal la ñuy jaamu yaay alal moo tax tey mën nañ nga nga faat bakkan alal moo tax nga def waa ay bépp ñaawteef boo xam ne pour mën a pour mën a am alal voilà te c'est pas bon. parce que waaye sax dafa tombeel génération actuellement mu xew muy ñàkk kóllëre doo am sa nit démb. yooyu yëpp fu mu nekk nii tonton jamono bi dafa changé way bi boo ko dégluwaatee rek yow da nga naan kii actuellement génération bii sax la wayal. waaw parce que loolu mooy man je pense que ne tey ñi ma ëpp expérience ci musique euh, ëpp ma ci gën ma ci yàgg dañ ne ma franchement fi nga teg sa tànk foofu la euh, way war nga ma war nga mën def benn texte boo xam ne tey dootul dee parce que day gën day bees toujours te je pense que ne tey ay porte de voix lañ man boog man de ma part personnelle sama philosophie loolu quoi bëgg naa bu may génn rek mu nekk ba mu am benn impact bu bokk déggee mu yee mag yee ndaw comprendre nga dafa nekk benn morceau boo xam ne morceau fétiche la quoi ni mu ñëwee ci man sax voilà ba tey man xaw ma ko te boo xoolee jusqu'à présent morceau dafay nekk actualité la day bees ba léegi te ngor mu moo nekk moo war a nekk ci jàmm war a nekk sa nature war a nekk sama nature ci doomu aadama bi parce que boo xoolee yàlla sax ci ngor ci la bind àddina maanaam dañoo dañoo représenter yàlla ci kaw suuf en tant que voilà être humain nit yàlla nit ki mooy alamul akbar bu yàlla bind doomu aadama ci gën jël xeetu teranga jox la mm-hmm. mais kon te kon war nga mën a am ngor en fait parce que imagine bés bu yàlla sàkk yaa ngi ci yeewu yàlla jëla dundal kon exemplaire nga benn da nga représenté yàlla ci kaw suuf <laughs> voilà dafa yàlla dafa jël ay jikkoom jox la ko te doomu aadama bépp xeetu jikko yëpp mu ngi ci moom jikkoy gaynde muus xaj et cetera et cetera mais ban ngay réveillé ci sa intérieur mooy mooy mooy jikkoy suñu borom te pourtant lépp mënta génn lépp mënta génn yàlla yàlla léppam ci léppam ci biir la nekk yaa tout dedans donc nit ki nag li tax ñuy wax doomu aadama lan la nit niteem nit mooy nitey garabam mais non nit niteem sag nite ba da nga am jikko ju rafet bu rafet boo xam ne tey ku la gis bëgg la proche ndax sa jikko ju rafet yërmaande gi nekk ci yow yi ngay dégg yëpp dafa nekk nature doomu aadama yaa koy réveillé ci sa intérieur kon ñàkk ngor je pense que ne tey baaxul parce que mooy benn jikko joo xam ne tey bu nekkee ci nit ki voilà dootoo mën a gis nit ku la defal lu baax dootoo mën a gis nit ki tey maqam bi ko yàlla jox doo ko nangul yàlla na ci yàlla musal. man nag sama morceau sama son préféré mooy danga ñu way delloo ñu ñëkkal muy jigéen euh, foofu tonton man boo fa wayee dee tuuti nag tax dinaa la moom <laughs> mais jigéenoo jigéen man mooy sama son. non man nag damay fay franchement bu fekkee bëgg nga may morceau danga may fay quoi. <laughs> tonton boobu nag da nga ñu si sagal. vraiment boobu moom mooy préféré. doomu aadama bu nekk da nga war a fonk en tant que yaay ngay fonk sa waajur bu la yàlla joxee soxna nga fonk ko parce que jigéen yàlla moo ko valoriser comprendre nga voilà. tey da ngay am tool am jiw bëgg dund en fait mais sa tool boo ko fonkul yaay doo doo doo jiw bay góob n'est-ce pas kon donc jigéen macha allah waa bi ngay bëgg ndaw si di ko ñaan wan nga yaayam jullite yow nga mbokkam jullite ba ñu doy loo may la ko xam nga ni xam nga xam nga ni war nga takk jabar dundaloo dunduloo yaay sanguloo dëkkaluloo wodduloo muy mbindaanu ngir yow jaay na caaf ngir yow jaay na beñe ngir yow teggi na tam joxula muy sàkku ngërëm li yàlla may jigéen géej mën na caareer ñi lay fontoo xamuñu jigéen du fowukaay parce que jigéen du fowukaay jigéen li ko yàlla may géej mën nañ ci réer parce que jigéen mooy société bi en fait doomu aadama makkaan bu mën a am ak noo mën a noo mën a mel personnalité boo mënti amit boo amul jigéen avec toi doo dund yaay. lan nga mën a wax ñi nga xamante ne donc dañuy def violence faite aux femmes parce que am na ñoo xamante ne ñoo ngi souffrir ñoo ngi seen buumu ñee ngi sëy ñu dem ba jur si ay doom ñii njaboot si te ñoo ngi euh, seen biir néegu sëy ñoo ngi siy dund lu metti loo xamante ne mënuñu génn wax. xam nga xam nga y a des ñi ngi dund comme les animaux doomu aadama sànq ma je te l'avais dit tout à mooy nit ki a tant que bu la yàlla joxee soxna ak boo nekkee njiit ci din manière général da war a am yërmande sa rawatina nga denc soxna comprendre nga benn jikko la en fait jikko mooy yor jabar mais du alal. bu dee dañuy maltraité jigéen li ma la wax jikko mooy yor mooy yor mooy yor <laughs> jikko mooy yor jabar mais du alal. parce que jigéen bëri voilà parce que jigéen tey ak alal joo mënte am boo ko mayul jàmm ci néegu sëyam après dundul. comprendre nga voilà man yaakaar naa doomu aadama bu nekk rek boo xoolee sa yaay jaar-jaar bi mu jaar fi mu coono ba am la mu nga dem ba majeur ba mën a defal ba mën la sa bopp di nga di nga fonk la yàlla joxee jabar ko fonk parce que jabar jigéen boo gis yaayu jàmbur la comprendre nga foyer c'est quelque chose boo xam ne tey jigéen mate fa la góor mate fa góor manqué fi jigéen manqué fa la ku góor gi mate donc loolu nag voilà loolu <laughs> vice versa matalante la quoi bu fekkee ne da ngay da ngay da soxna mayoo ko jàmm je pense que ne tey tey te ku tëral jigéen sax yàlla tëral rawatina sa soxna bi la yàlla jox maltraité jigéen daal man dox dëgg yàlla damay gis ne ku góor ki moom animal la lool bu baax daf bëri fi ñu koy dund ah. tonton aussi mais nag attention nag am na ci jigéen ñoo xam ne aussi mérito wuñ par jox yenn en fait. bëriwul de jigéen ñi la ñuy toroxal. non am na la majeure partie quoi parce que souvent nga gis foyer boo xam ne tey tey yow miy jaba da ngay da ngay da ngay torturer da ngay maltraiter sa jëkkër comprendre nga parce que am jigéen ñoo xam ne te mérito wuñ mbëggeel da ngay yëkkat sa xol jox leen ko ñu ñu ñu di lay sous-estimer di la di la di la di la humilier voilà wala duñ la jox gëdd bi ñu la war a jox te c'est pas bon soit muy góor muy jigéen ku ci nekk tey bu fekkee xam nga li la war ci sa morom mais ci dois le faire da ko def. tànn rek quelque ndax macha allah yi nga way bëri na mais lu joolaa bi aussi bato la joolaa bi euh, lan moo tax nga way ko da nga ci amoon xarit boo xamante ni moo yoon si biir bato bi wala dafa am lenn loo ci dund lu metti loo xamante ni moo tax nga jékki rek way la joolaa. waaw mais la joolaa ndeysaan fa Sénégal yëpp la metti parce que euh, boo xoolee tey métit la boo xam ne tiis la boo xam ne ki ñun yàlla bu mu amati ci barki yoon ci yàlla moo xam ne parce naa sax la joolaa li ci dee deew ok euh, am naa ci suma benn gain Alassane Ngom ci la gaañu voilà ma ci laa nag hommage boobu foog nga def ko parce que mënul ñàkk voilà parce que la joolaa nag bu ci xeli ñëwaatee rek ndeysaan euh, xol day tooy baru ngoñ tuuru mais nañ rafet njort gis ne yàlla ne moo ne ku dee ci deewu ndox àjji na nga jëm kon donc la joolaa daal bakkan ya fa des ah nañ leen gën a ñaanal yàlla ñu xam ne noonu la ko suñu borom bëggee voilà géej moom <laughs> du suur day lekk rek voilà bu fa dee daal bu dee deewu ndox daal aju na nga jëm nañu defar njort gën leen ñaanal yàlla te loolu daal yàlla bu mu amati ci barke yonent bi macha allah waxtaan bi neex na na tonton Lamine noo gisee musique sénégal sénégalaise actuellement ndax am na différence seen génération ak génération bi ñoom Wally Seck ngi fi ñoom Sidi Diop a fi mhm. ah, yi nan nga gisee musique sénégalaise actuellement. mais boo yooyu dañoo mën a way quoi dañoo mën a way trop trop trop laaw la cat suba na ma la macha allah euh, macha allah ñi ngi joob parce que parce que chaque génération bu nekk rek ak ñi muy li muy tombeel ñoom dañoo tombe benn dañoo tombe xale yi màgg nekk ndaw voilà ñoom la ñuy xam comprendre nga ñu leen di bëggal di wax rek ne daal euh, ah, ñuy defaat ñu anéeraat aussi nag gis ne kat ñun ay porteurs de voix lañ xale itam war nañu mën a war nañu war nañ leen mën a éduquer voilà leen ne ah tout est yàlla moo éternel def ñoom benn éducation boo xamante ne fonk seen i parents parce que à l'époque da nga daan jàng tey nga génn nga génn école toog taxaw ci mbedd mi foo la gis sa gis sa gis sa gis sa gis sa nga da ngay daw doo bëgg mu gis la mais loolu amatul da nga daan def da nga daan tooñ wala sax yaay papa yaayu jàmbur wala baayu jàmbur génn mu duma la te yow du la xam duma la mi ngi lay teg ci yoon comprendre la ba léegi te sa nga dem wax kalaame sa papa sa papa tegal la ci duma la mais léegi imaginer la xale boo door sa subhanallah police ngay fanaan voilà booy fi nekk nag Wally Sidy Diop et cetera yeneen booy ñi ngi ñi ngi bay seen waar ci musique bi mar marqué nañ seen empreinte duñ def loolu di leen ñaanal yàlla yàlla gën leen dimbali ci barkeem ci yàlla Mohamed ah musique nag dafa yaatu ah, ku nekk bay sa waadu teemu des si voilà ku sa bidiw tàkk daal walla nga ne ci yàlla dimbali la ci barke yonent yàlla Muhammad sama philosophie loolu la di leen ñaanal yàlla aussi parce que booy mën a way lañ marqué nañ seen empreinte macha allah ñu ngi bëggal walla waa Sénégal yal na yàlla gën dimbali. tonton ba tey rek maa ngi fi ma taxaw muy Wally Seck tey nee nga papaam moo doon sa idole ci way mhm. way nga ma génn nga way nga léegi benn son bu Thione Seck way tey nga gis doomam. nekk ci musique bi di bay waaram di ci def liggéey bu rafet. noo gisee tey waali boo toogee di ko déglu muy way waaye lu lan la lay jox fu mu nekk nii. mais mbégte parce que boo xoolee tey euh, da ngay dégg papam man je l'ai suivi à la télé benn jour papam di expliqué mu ne Wally Seck bu ñu fekkee dañoo war a julli juróomi raaka moom fukki raaka war a def mais Wally bu fekkee fekk na lépp pare itam dafa am dafa am talent dafa am benn talent bu nekk ci moom. parce que fekkoon ne tey bi muy ñëw fekk fekk lépp voilà lépp mat bu bu amul lu mu indaal itam bon du dem fenn. mais am na talent bi ñëw na gëm boppam dëggal boppam ba téye musique bi man dafa man si suis boo xam ne euh, euh, sama nature laay wax du ma wax li may waxee it dama ciy lenqlu son borom yàlla tax may wax man lu waaye am yéene naa la ko mais moom dafa job ba ak mu ak si fii kon donc voilà te ku nit góorgóorlu rek ah yàlla mooy maye riskuma indilaa wërsëgu jaam yàlla te na musique bi liggéey na macha allah yal na ko jik ci barke yonent bi yàlla musal ko ci lépp luy lor ak ay moromam aussi ba yeneen béykat yi fi nekk mhm. et voilà ban waykat mooy yuuxu ne dar mu nekk sa woykat préféré nga ni kii Lamine Señaan la si sama génération kan la ci mooy sa préféré c'est que Wally am na fu ma joxe wala bari na ne woon Wally Seck sa non non cest à euh, nit doo soxor en fait. ne woon naa la doo ma seel xaalis nga gëm morceau boobu ak Bambali Seck parce que Bambali dama dégg benn morceau muy def ci CEDEAO Thione Seck bi tu tu seras da cee way di dafa way ba benn modulation mu def comme man dama ko dama ci voilà sama daf ma neex en fait. foofu ne tu seras la femme la plus heureuse du monde c'est vrai y a que à la ronde. mais jamais je ne te trahirai tu seras bambale way boobu mooy foofu boo xoolee sama voix xaw na ko xaw na ko cof voilà te macha allah mën nañ way trop di wax rek ne ñoom ñëpp daal ci li ci waaye di ut la ci yàlla dimbali voilà. léegi avant ngay wax nga ma Waly. moom it ban ban moom day nga gis sa bopp wala. non mais Waly c'est que c'est que nag euh, du con 100 pour cent Waly dafa benn voix bu mu yor voix am naturelle dafa am voix am naturelle Sidi maa ma ku mën a way la parce que booy ba boo xoolee dafa bari ay facettes moom it bari na ay ton dafa bari ay voilà bari na voix yoo xam ne tey da koy développé moom it laalu ca en tout cas génération bi moom wax dëgg yàlla Wally Seck Bambali voilà Siri Diop euh, euh, gars yi ba mën a way Sénégal moom xam lu ñuy wax mais way moom yaakaar naa fi la fekk baax voilà Sidika waa ba jantal booy aussi booy Sidika itam dama koy ak booy fàllu booy fàllu dafa mën a way voilà voilà macha allah jibril waa jibril Diop Abdou Raas gaa yëpp ñëpp a mën a way Abdou Guité sama gaañ la moom moom koo xoole macha allah mu tam dama ko dama ko fan en fait voilà parce que ay texam dafa riche te il a une belle voix modulation yi doy waar lay def bañ nag bañ na ko sax damay sàcc may roy ci moom aussi voilà tonton ba nga commencé way ba jusqu'à présent xëyoo rek mu neex am nga lu metti loo ci dund loo xam ne doo ko fàtte ci euh, musique euh, si musique bi nga nekk nii mais aussi am na lu nax lu neex aussi loo dund doo ko fàtte mu nga ci wax mun nga ci wax tuuti rek benn anecdote si bi ma jëkkee avant may def euh, album dama daan doxe parcelle inter 21 ba Sandaga boobu maa ngi bëgg a def maa ngi boobu sax lépp boo xoolee maa ngi ut producteur te man ki ma produire nii Talla ma mënoon produire Talla Diagne mais xam naa Talla doo ko xam waa jamono jooju li ma gën a métti gën a métti gën a métti bi ma demee ba sama clip bi ma demee ba jaay ko ki ma waroon jox xaalis bi waaw daf ma war dama tudd turam nag moom mi ngi may dégg jour bi ma ñëwee mu war ma loolu ba bokk na lu mu métti ci sama ci sama carrière musicale jour bi ma jëkkee produire ma def album ba album bi génne ñu teg single bi ñu toog ci salle di ko déglu waaw jour boobu moom wax dëgg yàlla kontaan naa kontaan naa trop. Mhm. bientôt ay ay ay yu doy waar sax parce que ñu ngi liggéeyaat ñu ngi liggéey daal de toute façon ñoo ngi job waaw. kon balaa may tëj émission bi ndax l' émission tire à sa fin dañu nekk ci coupe du monde nag Sénégal waaw mondial bi ci sport la ñuy dugg ba pare. mondial bi Sénégal a ngi euh, Qatar. premier match mu am 2-0 wax ji bëri ba suba la ñuy joué waat. ah waaw noo di see équipe gis nga yaay Serigne su kelma ñaa ngi fii di wax naan fii la golo yu jonkoon noonu léegi la fi baamu ni jaar ay natt doxut quoi parce que yéen bëgg promotion la bëgg am tour la naaw te du yoon quoi de toute façon xaw ma dafay am ñi fi ñi ci nekk di xeex xaw ma xeexuñu mais daal yaakaar naa képp koo xam ne daal danga nekk sénégalais yaakaar naa bëgg nga si réew am ndam xale mag góor ba jigéen nañ jëlandoo suñu kuréel su ñaan yàlla bu laajee sarax mi def ko te boole suñu xol doon benn Sénégal jëm kanam. projet tonton Lamine yi ñoo ngi lay xaar Sorano man moom gëm gëm naa loolu moom ñoo ngi lay xaar Sorano ñoo ngi lay xaar Grand Théâtre soirée yi aussi pourquoi fan si déelee dañ koy laaj tonton ndax voix bee ngi fi ndaanaan bee ngi fi lépp ngi fi projet yi bientôt incha allah parce que euh, de tout façon daal yàggatul ñoo ngi ci voilà parce que nit moom mooy li may wax rek da nga ciy nekk rek yàlla mooy matal da ngay sabab lu suñu borom mooy matal te lu ñëw rek nga xam ne nga bu boobaa ak luy mënti xew rek nga maîtriser ko bu dee safaan nga maîtriser ko parce que ñaar yi moo am ci àddina mooy naqar ak bànneex mais doomu aadama di ngay dem au fur et sur ngay dem yàlla di ngay am évolution ci ci din ci ci biir ci biti muy inter externe nga dem ba nekk mag mag ça veut du ci age état d'esprit la nga dem ba lu ñëw nga maîtriser ko comprendre nga et voilà dafa am benn benn benn benn affaire boo xam ne foog ma ma ko message bii foog ma wax ko mooy nañu am discipline nañu am yar am teggin parce que boo nekkee éducateur nga taxaw télé devant tout le monde war a wax ñu lay déglu foog ñu peste moom xam li ngay wax parce que éducateur nga d'abord parce que jeunesse bi jóg léegi ci ñun la ñu rey rek ak ci ci côté matière bu domaine boo mën a nekk nag la ngay wax xam ko ñi nga jiite yërëm leen xamal loo ñu waxee ak ñoom respecté leen mm-hmm. xale yu jigéen ñi respecté seen i parents xale yu góor respecté respecté seen parent mag jox cër rakk rakk itam jox cër mag. loolu amatul de Amina léegi day xuloo benn daa dem ci réseaux sociaux yi wax lu ko neex. en fait en fait dafa dama ne la nit ki daf ngay da ngay fees da rek seytaane loolu seytaane moo koy def ci nit ki. te dafa am benn esprit ñaari esprit la quoi nit esprit sain mi ngi ci ku nekk parce que moom nga judduwaale moom laa judduwaale mais yaa koy développé ci nit ku nekk mooy sànq wax naa la ko sànq jikko yëpp mi ngi ci yow mais ban ngay ban ngay développé ban ngay yee mooy bu sell moom nga judduwaale mooy sa nature. boobaa moom ngay doxe di ko lekkee di ko waxee di ko tëddee di ko naanee c'est ça la vie boo fekkee na nga am na loo xam ne warula mën a moom quoi mooy bëgg a bës wala bëgg alal comprendre nga ba sa ba mu dee ci sa xol bi naaw te bëgg mënoo ko ñàkk a bëgg di nga ko wut parce que di lekk di naan bu dee góor di nga denc soxna am kër bu dee soxna jigéen di nga bëgg nga borom kër et cetera et cetera mais itam ci outine bi en fait dafay rafet quoi voilà surtout voilà. loolu tëjee émission bi mot de la fin bi. mot de la fin mooy je te waxoon naa la ko mooy ñu am yar am teggin. aussi itam damay gis benn affaire boo xam ne ñu koy def euh, sa sa président réew waroo ko saaga. parce que kilifa la donte àndoo ak moom man rafetlu ma ko bokk man peut-être question yi posé wu ma ko mais dafa metti en fait dama ne occasion la boo xam ne su ma ñëwee toog naa ko wax kii jiitu parce que atiixu laaha at atiixu wa huwa lil amri minkum moo jiite suñ kilifa la lu quelque chose luy mënta xew mooy suñu kilifa réew mooy suñu jiitu réew mais nañ ko respecté jox ko cër faut pas calomniser les gens sàkkantumaa sa président réew bul ko saaga rafetul man rafetlu ma ko àndoo ak moom am nga ci droit li la metti mën koo wax te doo saaga kenn ok merci jërëjëf tonton Lamine ñoo ngi lay ñoo ngi lay remercier ah disponibilité bi parce que tam ah, fi nga jógee dafa sori macha allah nga ñu ñëw ba zone de captage daal di tourné laaj naa ko tontu na ma ah macha allah def nañu émission bu nice parce que ñun dañuy soxla euh, talent yi ñun dañuy soxla ñii moom mooy tooñ naan ma ay 2003 moom la fekk nga nekk mag ak yooyu wax na ma ko ah boobu <laughs> boobu boo maa ngi nekk benn collégienne ah mais macha allah ñoo ngi rafetlu si euh, émission bi ak toogaay beeg yëpp macha tam ah, nga nekk ku yaatu ku disponible koo xamante ni euh, wax nga loo xamante ni ñu ragaluñu ndax bu subaa xam naa bu ñu la soxlawaatee. Ah. da ngay ñëwaat toog euh, maa ngi aussi Dada Dada di la baalu ak Dada maa ngi lay remercier di la baalu. <laughs> sonal naa ko. fi sama kër baay la. Mhm. mon père mooy suñu baay Pape Mbengue ancien joueur la woon ko xam ancien athlète. Mhm. yaa maman Anta Ndiaye ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu aussi. soxna ndey ñu ngi koy nuyu dadaa moom mi ngi nii toog jàkkaarloo ak man ne ma feewaaral mi ngi nii moom moom xool rek lay def nga ko nii mbéy nga mbooro di ñaan kër gi yàlla def fi jàmm parce que paa bi dafa jaboote ñëpp fu waaye jóge ñëw fu waaye jóge ñëw mu yaatal ñëpp doo bu fi ñëw sa doo xam ko fi dëkk ko fi dëkkul kon dañ koy ñaanal yàlla njabootam gi yàlla yokk leen ci yoon yonent yàlla Muhammad yàlla wàcc fi jàmm joo xam ne dafay sax abadan fii daal ko fi ñëwee di nga lekk di nga naan di nga am xaalis macha allah dinañ la dinañ dinañ la teral quoi maman Anta Ndiaye nag moom moom xam nga Saint-Louisien la macha allah père Pape it macha allah laa gis nga ko mi ngi nii toog jàmm daal yal na fi sax parce que loolu laa waroon jëkkee donc moo tax ma ne nag naa ko tëjee. dama koy tëjee ndax moom nit ku baax la mbay Diop moo ñu boole mais dara dara ñaawul daf may jàppale bu baax a baax si sama wàllu liggéey ma sonal ko loolu loolu loolu dadaa. lu nekk sa xol yi dafa fees munuma wax mais dama lay ñaanal rek nga gën a yàgg gën a wér si doole Thierno Ibra Faty mi ma yaakaar ndax nit ku baax nga ku serviable nga ku fonk sa nawle nga mbokk internet yi maa ngi leen di jox rendez-vous ak beneen émission ak beneen naanaan jàmm ci yéen